suñu kër boo mu saan teg boolu añ doo toog ndax sama yaay doomu jàmbur lu gënoon fonk dooma sama yaay bu añ mu saan tege yàlla dafa def mun am njabootu guur mais doo toog ñay toog ci bool ba bu ñu nekkee vingt quinze yëpp jurul leen te pèse bien mes mots woon lekk lekk bu neex suñu kër ngay ñëw yàlla dogal dix-neuf la ñu woon suñu kër sama maam hmm? sama ñaari magu yaay ah sama yaay suma papa mais ñëpp yàlla jël na leen léeg-léeg ma toog ba mu yàgg sama xel mi mel ni soogi dafa jàkkaarloo man. mais suma yaay El Hadj la gënoon jege. veyu tamxarit bi muy génn àdduna dama ñëw setti ko hôpital mu ne ma foog nga jéem a lekk cere ji parce que sa papa bu ko fi fekkee da koy lekk sa papa dafay lekk cere ji foog nga jéem a lekk cere ji mu ngi. mu mu mu waaw mu ngi tàggoo lu metti loolu bu amee yow yow yow nga gëstuwaat sa papa ñëw di la seeti def accident a gaañ parce que sama papa dafa may seeti dañ ko doon tere sax ne ko bul bul génn ñoom El Hadj ñi suñ ko musaan yëg dañ koy wax ne ko bul génn mu ne foog ma dem parce que sama sët yi mu ni mu ñëw taxaw beeke la yor mais poto bi taxaw poto bi mu taxaw mi ngi tàkk gars yi ne ya poto baa ngi takk booy yi daw mu daw ndekete glissé na daanu mooco bi damm xaw ma si dara après ma woo élage élage ñëw ñu jël ko yóbbu ko hôpital mais docteur bi non am ñaanu waajur bu yeboo ñenn ñi rek nañ leen bàyyi nañ leen bàyyi tranquille ñenn ñi ah leen bàyyi waxuma man la mais nañ leen bàyyi. sam papa buñ toogee hôpital. maak El Hadj ñuy ñuy xëccoo ordonnance yi chaque vingt minutes trente minutes ñu bindal ko ordonnance quatre vingt mille ndekete man damay ñëw ci docteur Gomis ne ko bu ordonnance bi génnee jox ma ko ndekete El tamit def na loolu Pape Samb sama magit def na loolu ñëw ci docteur bi ni leen yéen bu ordonnance bi génnee rek jox leen ma ko bu leen ko jox Lamine léegi El day wéeri ci beneen porte bi jël ordonnance bi daw ko man su ma ñëwee gomis ne ma sa sa élage jël na ko ma kaas ma ne ko moo ko joxate mu ne ma yéen lan lan mooy seen problème ak seen waajur ba ngay ndëkkat ci ordonnance bi nii sam papa bi muy génn àdduna bi biñ ko defaral ci tànk bi biñ ko opéré opération raté bi élage mu ngi ko jëndee quatre cent cinquante mille dañ ko opéré mercredi jeudi mu gaañu élage mu ngi ko jëndee quatre cent cinquante mille francs ba docteur yi nii la ñu jàppee ci loxo avant ñu koy dugal euh, euh, euh, pour opérer ko foofu sax laay kontaanee mu ne seen yaay sëy ak moom ñeen fukki at ak juróom quarante cinq ans mës sa fay musumaa wax lu ma naxadi musumaa def lu ma naxadi ba dem na bàyyi ma fi mais incha allahu rabbi kenn du leen yërëm